saa biram jigéen dama ne quatre jot na cinq heures dugg mais dama ne kaa bii yuuxu dina jib fuñ ko foogewul te bés buñ leen génnelee ki rey xale bi ñu naan asis Dabala bés buñ leen génnelee ki rey xale bi ñu naan Waali yéen sénégalais yi di ngeen tëgg seen gémmiñ di ngeen yuuxu ndax dingeen tiit parce que dafa am koo xam ne man mbaay sib sone naa ko numéro un numéro deux membre de famille bi sib sone naa ci numéro trois nag xarit yi nit ñiy wax te loolu leeru ma yéen ñi nga xam ne nag yéen ay xarit yi téye leen seeni gémmiñ léegi laa dox ba yam ci benn vidéo boogaa gis naa la ngay génn ne dangay leeral boogaa amoo dara loo leeral boogaa ndey géey neel boogaa mu arrêté bu mu wax ak kenn neel boo bu mu wax kenn na jàpp li jàpp jàpp ñàmburam noppi moom boo bu mu wax kenn ci kaa bi na toppatoo soxlaam lijjanti li muy lijjanti moom boo ndax ku ne xam na ni moom rayul moom boo ci boppam man gëm naa ni man boo rayul Aziz Dabala Nabou Leye man gëm naa ni rayoo Aziz Dabala yow Ndeye Yérim fecckat bi gëm naa ni rayuloo Aziz Dabala tey kay bu ngeen demoon ba ñu taqal leen ci xëy na mën ngeen xam ñi ko def loolu mën na ne you never know americain da koy wax yu never know mais foog ñu woo leen parce que c'est le Sénégal crime la bu doon benn nit bu doon Aziz donga nga dee dinañ leen woo asama laaj bi Aziz deewee boole koog waale ñu nekk ñaari xarit dañ leen di woo de dañu leen di woo c'est normal parce que dañ leen naan yéen a fa daan fréquente yaayu Aziz Dabala sax bu ñëwoon foofu day avant meurtre bi dañ koy woo moom maire bi mu xuus ñëw bu mënee dox dox bu mënul dox ñu teg ko ci puus-puus et day ñëw chef taala papa kurus dañ koy woo day ñëw de yéen ñëppay wuy si bi nag saana ne va pas dire que vous êtes coupable non non bi ngeen di wuy si ça ne va pas dire que vous êtes des mais wuy si bi day wane ni war ngeen a taxaw parce que am nga lu ngeen ci war a joxe parce que enquêteurs yi dañoo war a soxla kan moo def lii sénégalais yi kenn nelawatul sénégalais yi kenn lekkatul sénégalais yi kenn naanatul parce que problème bi dafa rëy on a tué quelqu'un un jeune Aziz Dabala bala ce n'est pas n'importe dans le pays c'est un célébrité il est un danseur clip boo dugg waykat way ko Aziz Dabala fecc na ko yéen a ngi dégg donc dama bëgg ngeen jàpp li ngeen jàpp yéen sénégalais yi xale bi lay nabu lay ak euh, doomu Ngoone Njaay géwél gi ndey yirim ak euh, yow booga miñ na yéen a doon def vidéo boobu ngeen préparé mën nañ leen woo mën nañ leen bañ a woo parce que tamit dig mën na leen bañ a soxla parce que dig am nañu intelligence boo xam ne mën nañu dem directement ci ki rey saa compte ñiy woo ña fa nekkoon nag ña ubbi bunt baax ña fekkee ña fekkeewuñ donc ce que je veux dire sur ça mooy yéen préparer leen sénégalais nag dinañ leen juger parce que c'est vous qu'on connaît avec Aziz c'est vous qui fréquentez Aziz c'est vous qu'on voit avec Aziz c'est normal sama yaay Fatou se wax na ko léegi nee na fuddankat ba nekk këram di ko fuddan suñ ko rayoon léegi bu Dubai police ñëwee dañ naan ana fuddankat bi waaw dañ naan ana fuddankat bi su ko defee fuddankat bi da ciy interpeller su defee su deful yëpp dañ koy woo mais xale la ñu rey dafa metti xale lañu rey te lii dafa metti on a tué un jeune te rey n'importe qui reyuñu yaafuus reyuñu baadoola ñu ku tekkiwul dara ki ñu rey c'est un quelqu'un kii nga xam ne dafa tekki dara ci dëkk bi di liggéey di daan dooleem nekk fecc kat am jom am fulla am fayda ba pare yor groupe tey Aziz Dabala rey nañ ko mais rey nañ groupe am bi parce que am na xale yi nekk ci ginnaam yoo xam ne dañu waroon a topp ci ginnaam fu mu jëm yóbbu leen luñ ko fay mu sedd leen ci ñooñu toppatoo seeni waajur hey on a tué une société on a tué et on l'a par erreur ki ko rey tey du nelaw dama ne ki ko rey tey du nelaw man am na ku ma message ne ko ndax yaa rey Aziz waaye tontooguma te kooku fu mu musaan dégg sama message bu ne kiling mu mu tontu ma dama ne yuuxu dina jëf fuñ ko foogeewul man nag cinq a ngi jot nee nañu aadamoo taal na nañu mbambax ndax ñun dinaa leen jël benn pat benn ngeen wax seen xalaat mais damay wax benn affaire rek gis nga euh, kii hmm. bu dee yaa may seetaan te xam naa ne yaa ngi may seetaan borom kurus gi maanaam frère Aziz bi kii ko war a moytu interview yi la wax ji bëri na lool te xamul lu muy wax day wax di bu lu mu wax bu ëllëgee leneen lay wax bu ngeen ma weddee ngeen dem déglu interview yi mu def yëpp lépp lu mu wax rek bu ëllëgee day sensé mook borom tent beeyam kii dafa war a noppalu ci boppam borom course gi dimbalu ñu ngir yàlla ak yonent bi nga téye sa course gi jàng salaatul fatiha lixlaas ñaanal ko Aziz te noppalu bàyyi ñu def suñ liggéey sa wax bëri na te loo wax dina koy fàtte boo amee sa mbokk nga ñàkk ko nga deele sa bopp day dem yow ay ay ay wax ndax doo ci bàyyi xel ndax ni ngay ni affaire bi demee ci yow la noppalul nga naan ndox tuuti ñaanal Aziz bàyyi nit ñu liggéey ah waay bari nga wax trop loo wax leneen lay wax dem leen déglu interview yépp ngir yàlla waay ah dimbali ñu nga noppalu nag sarax ñu rek gars yi la koy ñaan yi demande pour nga noppalu ci interview ak yooyu ay waay yirim de nii la def yéen muur muuraay bi ba ci bët yi xëcc ay tem def kumba gaw la taxaw naan man de mbaxal gu bees gi laay wax nday maxuma yaaray de dama ne togg bu bees bii ci samedi bi yéen a nga fa woon ma nii dala kaala woo ci dëj bi ah yàlla baax na kenn waxul yéen a rey nag kenn waxu ko de mais dañ na yàlla baax na daal nan topp kaa bi rek nan topp kaa bi incha allahu rabbi waaw gars yi ñu ànd ak dal waay bàyyi comédie bi tuuti waaw léegi nag nanu yaru tuuti waay gars yi vidéo bi nday yërim nee na nee na vidéo yi génn def na deux mois trois mois vidéo sax mën na def deux mois trois mois ñu républiqué mais man man ci boppam man moom man maa gëmul ne deux mois trois mois la loolu la quoi mais loolu mën na nekk mais man sama gëm-gëm gii maanaam moom laa gëmul quoi dama koo gëmul noonu la demee waaw mën na nekk nag mais man aadama maa gëmul rek ku nekk man nga jàpp li nga jàpp waaw man maa ko gëmul daal loolu la man maa ko gëmul waaw mais ku nekk mën nga jàmm mën na nekk daal mais ku nekk mën nga jàpp li nga jàpp du dëgg fi kenn du forcer kenn moo paree nag ci plateau yi nag ñëpp mën la ni débaawee boo demee fële ca mbaaya fekk fa aadama ñu koy waxtaane nga dem ci bada ñuy waxtaane aadamu nga dem ci sokok feneen ñuy waxtaane aadamu nda yirim la taf aadamu kay li muy def nangam nangam parce que ñoom ci mën la ñuy sukkandiku maay seen bàyyi man lépp lu may wax dafa am fu ma koy teg bu paree bu nit ñi di live ci man damay toog du seetaan damay reetaan rek te xam li may wax en tout cas daal benn affaire wax naa leen ko moom sénégalais tant que coupé wu ma moom kenn du neexle su ma coupé nag ñu dem fu leen neex mais man bu ma wootee Sénégal mooy ñëw ndax xam na ne du ma waxantu damaa direct lépp lu ma wax duma ci jaaraat noonu la deme léegi nag dinaa leen jël dinaa leen jël benn par benn ngeen joxe seen xalaat incha allahu rabbi